tamit euh, ci kër mm. euh, ba mën a euh, kon daal di mu fayee ko ci doom yi dafa fekk ne bàyyi aussi am nañ ci pàcc bu am solo donc mm. seydo Ba di ko nuyu bu baax a baax a baax moom sama sama xarit sama meilleur ami maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Saas mm-hmm. ñu ñëw ci yonent yàlla Souleymane alayhi salaam da expliqué nag max yi nan la def ak bant bi loolu rek laa ci histoire bi mm. moom mooy yonent yàlla Souleymane alayhi salaam mm-hmm. moom ab yonent la yàlla moom moo ko yónni ci xeet bu ñuy wax banu Israil mhm. waaye ku ne xam na ne way juróom bu góor itam yonent la woon dina yonent yàlla daawud mhm. alayhi salaam alayhi salaam ñu di ko wax ki nga xamante ni moom moo di David mhm. mu ne ni ci photo bi yonent yàlla Suleymaan am na ñu koy misaalee nii wallahu alam yonent yàlla Suleymaan rek moom dafa nekkoon ki nga xamante ni dafa dafa dafa dafa particulier li taxoon mu particulier mooy yàlla daf ko defoon mu nekk ab yonent waaye itam ba pare dafa nekkoon buur hmm. dafa boole ni woon diine ak jamono hmm. le pouvoir spirituel et le pouvoir temporaire ñaar yëpp la boole woon hmm. pouvoir spirituel bi borom bi subhaanahu wa moo ko tànnal boppam def ko ko waaye pouvoir temporel bi moom moo ko ñaanoon yàlla subhaanahu wa yàlla nangu ñaanam defal ko ko yonte yàlla daawud alayhi salaam moo nekkoon way juróom bu góor daawud yonent la woon waaye moom itam dafa amoon particularité mm. dañ siy cof tuuti ba beneen incha allah mm-hmm. yonte yàlla daawud alayhi salaam particularité mooy woon dafa neexoon baat mm-hmm. waaye itam dafa am la nga xamante ni yàlla daf ko ko mayoon neexoon na baat neex baat ba nga xamante ni dem na ba borom bi subhaanahu wa taala may ko lu picc yi sab mu xam li ñuy wax loolu itam yàlla defaloon na ko doomam yonte yàlla suleyman alayhi salaam mm. nga xam ne moom dafa toog bés yàlla am lu mu ko nattoo dafa bari woon ay soxna mu ne moom dina dem seeti ay soxnaam yëpp te ku si nekk dana fexe bu jógee si yow nga mën a jur jàmbaar ja nga xamante ni day war fas mhm. di xeex si yoonu borom bi subhanahu wa taala waaye nee na loolu ba mu amee kenn rek si soxna yi la yàlla def mu am si ki nga xamante moom moo di bant mhm. léegi comme moom tronam daf ko fonkoon nee na bi mu ñëwee rek gis yàlla nattu ko mel ni daf ko wan ne dafa am ku toog si tronam wax ne toujours buur day xaw a fiir mu am xaw nu mu xaw a doxale mhm. yàlla na ko yëf du yow am nga doole buur nga yonant nga waaye du yow yaay dogal ndax dangay am ay njaboot wala déet <laughs> mu xaw a fiir tuuti nag yàlla nag naka la nga mébétoon defe na boo si jógee noonu lay demee jéggalu yonte yàlla suleyman alayhi salaam daal dee tuub jéggalu borom bi subhaanahu wa taala mm. teg si ne ko qaala rabbi ghfir lii mm. ne ko yàlla jéggal ma ndax ni ma doxale xëy na du noonu si waxin waaye bul yam foofu wahab lii mulkan laa yanbaghi min ba'di innaka antal wahhab mm. may ma nguur ga nga xamante ni gannaaw man kenn dootu ko am innaka naka yow yàlla antal wahab yaay aji maye. Hmm. loolu li nga siy déggee mooy nguur yàllaa koy joxe. Hmm. dëgg la tax mu ne ko innaka antal wahab. Hmm. maanaam boo li nga siy déggee mooy ni yàlla yow yaay maye nguur. may ma nguur ga nga xamante nii dootoo ko may kenn ba ilaa yawmi diin yàlla subhaanahu wa taala defal ko ko bokk na si lu mu ko njëkk defal. mu tàggatal ko ngelaw li. am yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam. nga xam ne bu soxlaa dara day toog si tapis volant bi rek maanaam si basang bi rek maa ngi jëm Indonésie ñu war ko mu nekk tukki weer yàlla nee na du ko def lu mat waxtu mu yegg ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ko tàggataloon te da ko te da doon doxe noonu maanaam tukki ba nga xamante ni weer la si benn simili ay simili yu ndaw la ko doon tukkee moom yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam waaye yemul foofu yàlla daf ko boole woon ak jinne yi mu noot leen hmm. domine leen am si ñoom pouvoir moom yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam. Hmm. si kaw loolu da leen doon liggéeyloo moom jinne yi ñu koy defaral ay pale ñi di ko defaral ay ay ay objet daar hmm. yooyu yëpp mu toog di ko seetaan pour bëggal li nga xamante ni moom moo di bànneexu bëtam waaye dafa am bés moom yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam muy ni ñu ko nettalee hmm. muy seetaan dafa bëggoon fas naaru góor yooyu fas yu rafet la amoon mu leen di seetaan ba waxtu julli faat ko Hmm. bii xel mi jamee na ndekete waxtu julli faat na ko ndax fas yi mu tëral yëpp leen di hmm? leen waaw parce que digganteem ak boromam dara waru si dox sa sëriñ bu baax ba sëriñ Abdul Qadir radiallahu anhu loolu la waxoon hmm. li mu waxoon mooy bañ ko ne julli jot na muy génn ñu nekk ko mu ngi taw de est-ce que doon na gis ndiku ba taw bi bàyyi mu ne xuus si taw bi moo ma gënal dugg si bàmmeel ba nga xamante nii aw tàngoor laa fay fekk mooy waxtu julli loolu di firnde ne waxtu julli waroo waroo ko inna salaata kaanat alal mu'miniina mm. kitaaban mawquutan yàlla ne julli dama ko wutal da nga mm. parce que xamuloo ndax waxtu wasa topp dina la fekk waaw wala déet waaye yemul foofu dinañ ñëw léegi si li nga doon wax waaye tam yàlla doon wax naan yéen waa kër yonte yàlla daawud alayhi salaam dee leen jaamu yàlla di sant yàlla bu baax a baax ndax yàlla ne ne lu néew si ay jaamam ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy sant waaye histoire yontu yàlla Souleymane alayhi salaam li si gën a yéeme mooy. Mm. dafa am bés mu dajale ñi nga xamante ni ñoom ñoo di njabootam. li mu am fekk boobu yàlla defal na ko li mu koy defal defal baayam li muy defal yontu yàlla Daawud alayhi si xam-xam ak li nga xamante ni moom moo di ak ràññee ak ak ubbeeku. Mm-hmm. nañ si new sax si kanam si wàllu kiis am na la nga xamante ni boo ko si alquran boo ko si boolee am na ñu koy defaral xale yi kiis ngir ñu koy naan. Mm-hmm. mais dañu sant yàlla si xéewal gi mu leen defal te ñu yàlla dara ñoom. Mm-hmm. mais yàlla la soob mu defal leen xéewal googu moom ak way juram yàlla nee na Souleymane dafa doon na daawut ne leen man day la sama bàyyi manoon xamoon ko bu picc yi sabee mu xam ko man yàlla defal na ma ko. ullim naa mantiqa tayra wa uti naa min kulli mu ne leen yàlla defal na ma xeetu xam-xam bu nekk hmm. lii day mooy ngëneel li nga xamante ni moom moo gëna neex bes nag mu dajale soldat yëpp di tukki hmm. bi muy tukki mu jekki-jekki di def revue des troupes hmm. gis ne am na ku manqué muy benn picc bu ñuy upp woowe upp fasiye euh, mooy picc bi mooy ah, hudhud mooy bu rafet bi mooy bu rafet bi moom la arab di tuddee hudhud qaala maa la laa aral hudhuda am kaana min al ghaa'ibin waa mais upp upp fasiye bii muy picc bii wut wut lu tax gisuma ko wala moom dafa bokk si dafa déserté bu fekkente ne dafa déserté day bu ñëwee dinaa ko yóbbu tool pour militaires ya policiers ya mën a xam maanaam dinaa ko dinaa ko mbugal hmm. aw la u'adhibannahu adhaban dana woon sax dama koy rendi wala ma mbugal ko mbugal ma nga xamante ni dootu ko fàtte waaye bi ñu demee ba jëmmi ba jëmmi jamono bi ñuy dem hmm. yàlla def bi ñuy toll si benn jam benn benn xur melentaan yi muy xorondoom yi di romb jékki-jékki rek benn xorondom ne eh! gaaw leen xaalat namlatun yaa ay duxul yaa nam ayyuhan namlu duxulu masaakinakum mm. yéen sama moroomi xorondom yi gaaw leen ngeen dugg mooy jamono mbas mi bi muy tàmbali ma lay wax naan alquran am na confinement mm. melentaan yooyu wala xorondom yooyu ñoo njëkk a confiné wu ne mm. udxulu masaakinakum confiné wu leen balaa Souleymane di ñëw ak ay soldaaram di jaar seen kaw ba rey leen faat leen te ñoom du ñu yëg ne sax faat nañ leen waaye bi mu amee yonent yàlla Souleymane alayhi salaam dana gars yi alt ñu taxaw mu muuñ wa tabassama daaxikan min qawlihaa xam nga lu tax mm. parce que dégg na li xorondom bi wax mm. mm-hmm. dégg tax taxaw am waaw mu ne leen alt ñoom ñëpp ñu taxaw mu ree waaye bi mu reewee fëggul dënnam bàkkuwul qaala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati mm. an'amta alayya wa ala walidayya mu ne yàlla may mam ma kañ la bàkk la si xéewal gi nga ma defal teranga gi ma def gi nga ma defal yiw bi nga ma defal ba xorondom yi bu ñu waxee ma mën a dégg li nga xamante ni moom la ñu wax wa an amala salihan tardah te lépp lu ma mm. defati yàlla mu nekk jëf joo gërëm wa adxilni bi rahmatika fi ibadika salihin te nga dugal ma si sa yërmande yërmande bi nga xam ne si ngay dugal gaay yi nga xamante ne ñoom ñooy say yu sell yi mm. bi mu gisee hud hud nag ba mu ñëw mu ne ko moo yow foo nekkoon mu ne ko man daal dama doon doxantu si waxin ba yegg benn dëkk bu ñuy wax saba mu ne ko lu fa xew mu nekk dama fekk ña nga xamante ni dañuy jaamu jant di bokkaale yàlla mu ne ko ah mu ne ko ah, mu ne ko léegi mu ne ko nag te ñoom jigéen sax moo leen jiite kon jigéen yàgg naa am jom hmm. mu ne ko inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim hmm. mu ne leen dama fekk jigéen mu jiite leen waaye ku am pouvoir lu ku am doole dara tawu ko kooku lu mu jiin rek xeeb na ko ndax dafa yor armée yor doole yor lépp mu ne ko léegi mu ne léegi nag mu ne ko dama bëgg ñoom ah bu ñu leen mënee seeti ñu seeti leen ñu bàyyi li ñuy jaamu di jant bi ñuy jaamu ñëw topp borom bi subhanahu wa taala yonte yàlla suleymaan alayhi salaam ne ko waa baax na bu dee li ngay wax dëgg la amul problème bind benn lettre tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim moo tax ñu ne la alquran 114 saar la saar bu nekk bismillahi rahmaani rahim la tàmbalee ba mu des suuratu tawba bismillahi rahmaani rahim bi nekk si suuratu nam la moo ko remplacé donc 114 yi mat na wa innahu min sula innahu bismillahi rahmani rahim innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim suleyman bind lettre bi tàmbale ko bismillahi rahmani rahim ne leen bu leen ma défier hudhud ñëw na muy picc bi wax na ma li ngeen di def yëpp dam bëgg ngeen ñëw tuub bàyyi li ngeen di jaamu ñu ànd jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye bi lettre bi ñëwee ndaw si ubbi ko liir ko woo assemblée bi ne leen kaay leen mu ubbi ñu ñu ne ko la la démocratie xanaa ñëw na mun leen lii dama ko jot muy benn lettre dama bëggoon jàng ngeen ñu jàng ko xool ban décision la ñuy jël mm. ñu nekk lettre bi lan la ñu ne mu ne leen Souleymane moo ko bindu buur la te nee na ab yonente yàllaa ko yónni nee ne dañu bàyyi jant bi ñuy jaamu ñu ñëw topp ko moom te jaamu ji yàlla mm. Mm. gaa yi ne ko waa léegi amul problème léegi xam nga nu ñuy def kii bu dee buur la dinañ xam bu dee àddunaa ko tax a jóg bu dee yàllaa ko tax a jóg dinañ xam léegi yow seetal kado bu foor nga jël ko nga yónnee ko ko boo ko yónnee bu dee buuru àdduna la da koy nangu bu dee yàllaa ko tax a jóg da la koy delloo hmm. bi mu yónnee cadeau bi si gàttal mu dem si yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam mu ne leen waa mais kon kii daf may jéem a corrompre hmm. xamul ne man maa ko ëpp jinne yi man la ñuy liggéeyal nit ñi man maa ngi leen noot yooyu yëpp moom nguuram gu ndaw gi muy may défier di ma yónnee ay kii di ma jéem a corrompre léegi xam nga lan la takk leen armée bi ñu jóg ñu ko gars waaw baax na amul problème yow li nga wax rek loolu la ñuy def ba pare mu ne leen lii mu fi indi nii delloo leen ko léegi Souleymane alayhi salaam léegi ne leen balaa ñuy dem dama am lu ma bëgg gars yi ne ko loo bëgg mu ne leen chaise bi muy toog laa soxla fii moom Balqis mooy la reine de Saba chaise bi muy toog trone bi mhm. moom laa soxla ku ma ko indil benn am ku jóg si jinne yi kàngam si jinne yi ne ko man mën naa la ko indil laata ngay jóg fii nga toog mhm. benn jinne ne ko balaa ngay jóg fi nga toog man ma indil la chaise bi am ku ne ko yow da nga yeex boo xefee balaa ngay xippi ma indil la ko Souleymane fi mu nekkaan loo wax chaise bi ñëw. seet ci yàlla bajj kooku nee nañ mu ngi tudd Ansif nu Barxiya doomu bàjjanam la mais dafa amoon xam-xam ñaan ba nga xamante ne mooy ismullahi al azam hmm. loo si ñaan yàlla mu defal la ko vite fait am na ñu ne lii la am na ñu ne lii xattaa turam sax am na ñu koy utiliser pour jéem a xam wala jéem a jëfandikoo li nga xamante moom moo di ismullahi al azam boobu noonu am na ñu ne tamit jinne la mais li gën a siiw dañu ne doomu bàjjenu Souleymane la mm. alayhi salaam donc bi ñu demee bi mu andee chaise bi mu ne leen oowal leen ma Balxiis mu jógee Saba te ñëw Balxiis jóge waaw Balxiis jóge Saba daal di ñëw bi mu ñëwee dugg si palais bi li mu njëkk a gis mooy que ne genre euh, aquarium si suuf mm-hmm. mu defe ne bu jéggee day tooy mu ok ok robb bi mm. pour Souleymane ne ko lii aquarium la mm. jën yaa ngi daw si biir ndox maa ngi fi mais moom defoon na ne ndox la bu si tegee tànkam day sëtax mu ne ko jàllal nga ñëw bi mu jàllee ñëw gis chaise ba mu bàyyi woon fële nu mu tuddati ci dëkk ba Saba mu gis ko Souleymane ne ko yaa ngi xool chaise bi rek lu xew a ah, hakaza arshuki ndax xanaa li dafa nuroog sa chaise mu ne ko ka annahu hu bu ma juumul de moom la mhm. mu ne sa chaise la mu nekk ko kon yow lii ngay wax dëgg la mhm. yàlla subhaanahu wa taala moo la yónni ab yonante nga te nag dama ñëw ngir lenn àndaale ñi nga xamante ni ñoom laa njaboote ñu ñëw jébbalu tuub dem si borom bi subhanahu wa taala waaye jébbal bi nag lii la ko waxee qaalat rabbi inni zalamtu nafsi moom balqiis mooy wax la reine de Saba ne yàlla man dama tooñ sama bopp si jaamu jant bi ma doon jaamu jant bi te bàyyi la mhm. waaye yem ma foofu wa aslamtu maa suleymaana bés ni ki tey jébbalu naa ànd suleymaan mm. jëm si kan lillahi rabbil yàlla mi nga xamante ni moom moo di buuru mbindeef yëpp moom boroom bi subhaanahu wa taala yonte yàlla Suleymaan rek suñu borom subhaanahu wa taala wax naa la ko sànq defal na ko ay may yu baree bëri hmm. bokk na si jinne yi tàggatoon na leen hmm. bokk na si itam li nga xamante ni moom moo di ngelaw li tàggatoon na leen waaye fu mu faatoo hmm. mooy li ngay wax naan max bi nee ne loolu rek nee nga loolu rek la si retenir yàlla nee ne Suleymaan dafa toog bis ne defar benn kii plan architectural ne léegi jinne yi palais bii laa bëgg ngeen tabaxal ma ko wala temple bu mel nii defar leen hmm. gaa yi di liggéey mu toog gaa yi di liggéey mu toog gars yi di liggéey mu toog jël yetam soonu nee na jinne yi di liggéey lu man junne yi at wala lu ko jege si waxin mu sóonu rek nekkate jamono boobu faatu na bu yàgg hmm. mais jinne yi ñemewuñu ko woon ñu xool sax ndax moom mu ngi dund wala nang la mu ngi ne de ñoom daal comme Souleymane santaane na exécuté rek hmm. ñu nekk si nekk si yàlla yebal benn max ak max ni mu lekkam ni mu yeexee yàlla nee na max bi di lekk yet bi di lekk yet bi di lekk yet bi di lekk yet bi ba yet bi jeex Souleymane daal dee daanu ñu door a xam ne kii ndekete dundatul allahu akbar kon mooy li ñu doon waxtaan sànq si nguur mhm. xoolal kii pouvoir bi mu amoon ñun suñu président yi àdduna rek la ñuy am mhm. si waxin maanaam duñ jiite diine ji mhm. ba pare itam amuñu woon pouvoir si jinne yi mais kii jinne yi lépp ngelaw li xorondom yi njanaaw yi yëpp mm-hmm. yàlla def ko ko tàggataloon mm-hmm. jox ko ko moom yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam mais taxul mu beew mm-hmm. mais nag dafa autoritaire woon si waxin par rapport ak ñi nga xamante ni ñoom la jiite mais du woon mbeewte moo tax yàlla mu ne fa lamma xarra tabayyanatil jinnu an law kaanu ya'lamuuna al-ghayba maa labisu fil azaabil muhiin loolu moo lay wane ne ndekete jinne yi daal mhm. seen xam-xam dafa am fu mu yem dafa limité mhm. yàlla ne ndax nee na bu ñu xamoon métaphore maanaam li nëbbu ba Souleymane deewee sa la ñuy bàyyi mhm. mais dee na mille ans après ñu nekk di liggéey rek ba max ba lekk yet wi ba muy door a daanu ñuy door a xam ne kii dee na dañ daal dee arrêté li nga xamante moom moo di moom dafa dangereux moom moo di moom moo di liggéey bi donc loolu dee daaneel bâtiment waaw loolu loo ngi ciy déggee mooy borom bi <laughs> commencé woon lay tàmbalee si ñetti ba ñeenti jàngat. waaw nguur yàllaa koy joxe. Mhm. dëgg la muy benn bi si topp. dafa am la nga xamante ni ñaan a koy joxe. Mm. nguur yàllaa koy joxe waaye am na la nga xamante ni ñaan. moo koy joxe da koy sabablu te ñaan amul lu mu mënul. Mm. beneen bi itam mooy li nga xamante ni moom mooy lu la yàlla jox nguur nguur nguur. am na loo xamante ni toujours mu ngi ko téye si loxoom. Mm. moom borom bi subhanahu wa maanaam liy sotti. ak li dul sotti. yow da ngay sabablu rek. beneen bi rek fi may jeexale mooy nguur jarta beew ndax boo xoolee kii yoroon temporel yor spirituel ak fi mu mujjee max moo wane ne kii dee na mhm. nga xam ne doomu aadama si waxin du dara max kuñ ko wax nga mer kuñ te kuñ ko wax nga mer mhm. donc histoire yonte yàlla Souleymane si gàttal mhm. mën nañ si wax fii ba déwén ndax livre yi si bind bari na du jeex mais daal jàngat yi loolu la yàlla nag bi mu koy yónni mu ngi nekkoon neuf cent trente et un ans neuf cent trente et un avant Jésus-Christ la yonte la yonte salaam ñëwoon gane si àdduna yàlla yónni ko mu nekk yonent ba si biir yàlla def ko mu nekk buur mhm. en même temps li gar mi doon wax man si bii man si bële boor mhm. mm. mais teewul mu nekkoon ki nga xamante ku doyloo woon yàlla la ku doon jaamu yàlla la ko nga xamante ni masul bokkaale yàlla mhm. ndax objet d'art yi ñu ko doon defal nekkul woon ne daf leen doon xool pour xolam di bëgg déedéet mais dafa doon pour taaral ndoxu bëtam rek parce que ku si nekk itam fa bëggoon lu rafet daal am nga li nga moom moo di sa sa passion mhm. loolu passion am la woon borom bi subhaanahu wa taala itam nanguloon ko ko mhm. ndax yonente bu yàlla ma su yoon nit bokk na si objectif bi la yàlla di sant mooy que ne fexeel ba buñ bokkaale yàlla ak kenn mhm. buñ bokkaale yàlla ak leen te loolu itam yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam Adja Dieynaba encore beneen histoire euh, bu bu bu une histoire passionnante euh, mm. professeur Massamba Gueye euh, mi nga xamante ne mi ngi ñuy seetaan nee na picc bi mi ngi tudd Moussam Njipiri yaakaar naa loolu la ci wolof ah, waaw Moussam Njipiri ci wolof yaakaar naa professeur Massamba Gueye di ko nuyu bu baax a baax moom xam naa peut bu ñu paree gàmmu gi dana ñëw kon ñu waxtaan ci livre am nga xamante ni génn na ko muy art oratoire mm. auto régénérance donc du conte Euh, moom professeur Massamba Gueye dinañ am mbégte lool lool lool mu ñëw euh, waxtaanee donc euh, livre bi di ko remercier aussi ci seetaan bi nga xamante ne muñ koy rek daal di seetaan Garmi. Hmm, xanaa rek am mbégte uh-huh. ndokkeel oustaz Assane bu baax a baax. Mm-hmm. ndax lii tamit daf ci am solo. Mm-hmm. parce que dafa am ay jàngat. Mm. te jàngat dafa dafa nekk loo xam ne lii bu fekkee ne nekkuloo ci wala nga déraillé ci benn côté. lii mën na la indiwaat. oustaz la xam ne xam ne tamit loo loo fi gis. ci nett rek lay mujj. Mhm. Mhm. loo gis loo fi gis souvenir lay doon. Mhm. te nga rafetal ko nag ba bu ëllëgee buñ ko nettalee mu rafet. day nekk loo xam ne lu am solo. mais li mu indi daal ci yonent yàlla Souleymane. ma alayhi salaam macha allah daal lu am solo la. am na jàngat yoo xam ne yii ku ci nekk am nga ci paar loo xam ne lii moom nga ci war a jël mu doon suqut ba bopp nga man ko jariñoo mu nekk lu am solo. ndokkal tam oustaz. Euh, euh, euh, professeur Massamba Gueye Massamba kooku moom. moom mooy kër gi kër gi mooy Masamba. Mhm. wax dëgg yàlla ci nit ñu baax ñi tubarkalla fexe ba kër gi baax. moom tam ci la bokk kon ñu koy ndokkel di ko ah. ñaanal jàmm lu bëree euh, euh, léegi ci yow Mamadou euh, juste numéro yi 88 628 20 20 bu nekkee am na benn téléspectateur ñu daal di koy jël aussi jox ko ci enveloppe yi nga xamante ni ñoo ngi fi mais peut-être ba ba Oustaz Assane doon wax sama xel dafa dem un peu ci suñu système éducatif mm. que lu muy lu muy expliquer ci yonent yi mm. loolu rek doy na histoire doy na ay njàngat yi nga xamante ni war nañ ko mm. mën a inculquer donc suñuy doom te loolu fan la war a mën a jaar dëgg la ci ñun am nañ ci part de responsabilité surtout système éducatif euh, bi nga xamante ni war nañ ko mën a tëral. mais loolu loolu loolu laa doon xalaat léegi bi muy wax. kon dama sànq mi salaam daf lay voyagé loo <laughs> euh, histoire yu am. Mhm. ñu ñu tënku ko ci diine. Mhm. donte bu fekkee jamono jooju sax mën nañu wax ne diine religion musulmane ñëwul woon. Mhm. mais dafa am yeneen contexte yoo xamante boo koy booy koy contextualiser actuellement nii di naan l'histoire se répète. parfois boo koy boo koy gisaatee nii di nga xam ni Euh, nit ñi wala ñun ñi nga xam ne suñu génération wala génération yi ñuy jiitu ñi ci ñi ci am ab ñàngat bi bariwul noonu mm-hmm. moo tax du l'intérêt li nga doon xalaat ah mooy jëm ci Eh, gën a eh, ñoŋal suñu suñu suñu ndaw ñi pour ñu gën ko mën a xam gën a miin histoire yu ni mel ndaxte lii dina la permettre histoire bi bu ko déggee début bi ba fin bi dina la permettre au moins nga def benn analyse bu ndaw contextualiser xoolaat sa bopp xoolaat ne nekkate kat man nekkate li may doxalee nii ak nii nii li gën a simple mooy nii toujours finalité bi dee la wala génn euh, faatu la te euh, faatu gi kii yor bakken gi mooy borom bi loolu dafa leer te saa yu ko neexee la ko war a mën a jëlee ci solo mm-hmm. te li ci war a koy wax sànq Euh, boo koy xool ak dirigeant yeeg yenn yenn yenn yenn ñi nekk ci nguur dafa mel ni yàlla daal dafay def beneen xel ci mhm. seen ci seen beneen xalaat ci seen bopp mhm. ba xawma yi fi àddina la leen topp trop trop xam ne bu ñuy wax suñu njiit yi rek dañuy wax Afrique gu ñuul gi rek mais euh, pays maghrébin yi tamit mhm, pareil ñu gis situation yi nga xam ne ñu ci toog accroché wu ci pouvoir ba parfois bu boo ciy génn day nekk lu lu lu naqar lu triste da nga naan oo oh, rek ngay dégg euh, pourtant kii nii la doon def démb démb pouvoir bii la amoon tey fii la mujj loolu rek ngay si si si benn sa <laughs> mën naa jeexal. si rapidement nga wax ngeen wax ko. sur <coughs> le système éducatif moo ko wax. Mhm. nee na muy nettali Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si alquran. si jaar yi comme ni ñu koy defee fan yii. daf ko wax ne ko wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul xam nga lu tax. maa nusabbitu bihi ko ñu ma lay nettali seen ay yonent seen ay jaar-jaar si ay yëpp. Mm. lenn rek moo tax pour defal sa xol. te maanaam defal sa xol pour nga xool yow fan ngay teg sa tànk mm. ak naka ngay doxale ak nan nan àdduna naka la ak nan la mm. ne ko am na ñoo xam ne netti na naa la seen bos am na ñi nga xamante ni nettaliw ma leen seen yos waaye yemul foofu wa aka fi hadihi al haq wa mawizatun wa zikra lil muminin mm. yàlla na ko ñetti yi jàpp ko ni ma la ko waxee noonu la amee comme ni nga wax dëgg la du mm-hmm. dañ beneen bi topp mooy dama ko nettali pour mu nekk ak waaraate lu ngeen di bàyyi xel mm. xam nu ngeen di doxale mm. waaye wa zikra lil muminin mu nekk un rappel mm-hmm. pour les croyants mm. bu dee buur na ñu nettali histoire yonte yàlla Suleyman alayhi salaam nga xam ne yow yoroo dara si nguur mm-hmm. par comparé comparé ak moom ak koo xamante ne day jiite ay jinne naan leen liggéey leen ñooñu di daw daw dem ak a ñëw ba pare mu leen di liggéeyloo xamuñu sax ne euh, euh, kon euh, faatu na mais ñuy continuer di liggéey rek parce que kenn sañu koo yee dama xam sama genre gi bu ñëwoon pouvoir boobu de dañ naan birima monsieur ba bu waxee ren balaa wax dëwën kii nag mooy birima monsieur na yoon la daan wax en tout cas merci beaucoup oustaz Mame Gor Diazaka mi ngi mi ngi lay nuyu bu baax a baax envoyé na message ne nag sa rubrique bi dafa am solo ndax ñu ngi jàng donc lu bare bari mhm. ñuy ñëw di waxtaan ci yonent bi yaakaar naa ne c'est même une occasion ci weeru gàmm gu ñu nekk daal di waxtaane kon yonent yi xam ci bu baax a baax lan mooy seen histoire jëlee ci aussi ay euh, euh, ñàngat ay euh, nu mu tudd sax dogal yu ñuy jàngat ak yooyu <laughs> c'est vrai c'est bien voilà di xool nazi yi naka la demee woon ak juif yi yooyu yëpp c'est bien mais mhm. daal di dugal aussi ni nga xamante ni moom mooy éducation ci suñu ci suñu bopp gone yi loolu tamit lu am solo la chaque fois dañu koy wax tourisme religieux mhm. dafa am tourisme culturel dafa am te loolu ñun ñoo ko waral ñoŋal ñun ci suñu wàllu bopp donc rek muy lente muy gën di communiquer ci lii ndaxte mhm. jamono ji ñu nekk jamono communication yow tamit da war a tamit lëkkaloo ak ak Mamadou Ndiaye mu dugal la li ci internet léegi dafa dafa dafa yëf yi dafa doy waar ba ñi nga xamante ne mooy ñun lu bokkul ak suñu diine lu bokkul ak suñu culture mm. dañ koy gën a fësal te ci mu nekk démb gis nga li jot am ak ci mbirum euh, góor jigéen nga média yi foo taal démb ba tey moom la ñuy waxtaanee fësal mais ñun tamit ci mbiru diine nga xam ne dañ ciy dox ak mbirum valeur ak culture bi nga xam ne moom la ñuy doxee gën a mën a fësal. et c'est très simple tu prends ton téléphone tu te filmes et tu donnes à Mamadou Ndiaye. il il, il disperse on partage. c'est très simple